xam nga réeree yàlla ak réer ci yàlla mbaa yaa ngi ne yéen a xam ne dañ daa gisatu ko fi dara wal jaal billaahi taala huwa aynul maarifati billaahi taala réer ci yàlla mooy jëmmi xam na ah yi tey mooy ngëm gu wér almañ maxe nga xam ne dañu ne ala xuloo bi ci eh, sax boromam